بالصديق وبالفاروق ثم بسير نورين ثم أبي سبتين الله بمالك سلمسا يا شفيع أبي حنيفة أحمد المحمود الله باللو والقلم موفوس ثم بأر سيد العظيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داوود جاء به وروح الله عليه الصلاة وتسليم عليه له والآل والصحب والأصوات الله leen ci wooye ngeen ñëw ànd ko yéen ñëpp di njabootu maam Cheikh Anta gépp euh, président Idrissa sëriñ bi nee na mi ngi lay dalal fii ci Daaru Salaam di dëkk boo xam ne mooy dëkk bi sëriñ Touba njëkk am bu moomal boppam bi yàlla dogalee way juram génn àdduna muy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ca Mbàkke Kajoor mu denc ko deqale ñëw sañ ci Mbàkke am fi ñaari at la ko suñ boroom digal fekk na booba doom ju góor ju am suñ borom jël ko suñ borom xamal ko ne ko am na suuf su ne ci penk bi soo xam ne kenn mosu faa mooy yàlla buur it mosu koo moom soo fa sañcee doom joo amati dana dund waaye danga ma Sëriñ Moussa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 déqale la ma njëkk a yóbbu dama fii la sa maam Mor Anta Sali tëdd fii la Lat Joor tëdd kii moo nekkaloon yàlla kii moo nekkaloon àddina jàngatalal sa bopp li mu ma wax ci maam Cheikh Anta ak la tax mu njëkk ci sëriñ bi ba maam Mor Anta Sali di génn àddina di dénk boppam sëñ Touba. la ca soxna sa for déey ko maam Cheikh Anta mooy sabab ba di sàkku ñaanu njabootu maam Cheikh Anta yëpp te ñaan gi li ci jiitu di jàmm ndax bu jàmm dee am kër nee ma fii la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 dañu koy tuddee conflit boo xam ni de basse intensité mm. maanaam mm. du lu rëy rëy loo xam ni mm. dana mën a yëngal am réew jàmm jooju lañuy sàkku Mbàkke nga ñaanal ñu ci mu sax ci senegal ak ñi ko dëkkee euh, ak ci turu njabootu Daaru Salaam gépp nag ñu ci ëpp a ngi toog ñenn ñi euh, yi dafa bette ba tax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 ay mel na ni ñoom ñëpp teew nañ fi ndax mm-hmm. ñoom ñëpp dañoo tokk doon benn say mm-hmm. di waa Daaru mm-hmm. di jëfe ndigal di bàyyi tere eh, la xamal ne nag eh, eh, sa xel war naa dal ndax yoon wi la sëñ Moussa jaarale ne la la xamal ci Sëriñ Tuubaa ak ci yoonu murit li ma la ci mën a xamal suuf na ci yem waaye lim la ci xamal mooy yoon woo xam ne moo lay may li ngay wut sëriñ tubaa ko wax sëriñ tubaa moo wax ne fa qaddim al ilma ala amal ida aradta an bil amal na nga jiital xam-xam ci liggéey boo jiitalee xam-xam ci liggéey li nga bëgg danga ko am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 Eh, fii moom barab la boo xam ne sëriñ tubaa moom daanaka mës ta noppalu mu bëgg ci lu baax rek suñu borom dana ko def eh, yow nag nga jaar ci bunt boo xam ne bunt la boo xam ne eh, dafa bari loo xam ne du hasard waaw ndax sëriñ Moussa Naël mi nga jaar mu teg la ci yoon wi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 yaakaar jooju nag yàlla bu ko yàlla tas ci yow yàlla bu ko Sëriñ Tuubaa tas ci yow yàlla bu ko Seex Anta tas ci yow yàlla bu ko yoon Murid tas ci yow yàlla bu ko lislaam tas ci yow kon yaa am nañ ci maa njëkk a taal sàpp téléphone la woo ba nga nekk premier ministre premier ministre boole maag soxna Dior Sadio mooy dégganteeg may teraanga yu am solo ñu jëfee jëfee bu am solo ba yàlla at jëm ak coono nag. président Idy man lépp neex na ma ci yow waaye sa diine moo ma gën a neex.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 keroog Thierno maa doon wax ak moom am naa fit dama ne woon damay dañ damay te dama guddi ñu jël si ma yóbbu ma police waaye sama sang yi duñ ma seetaan ndax maa wax ak moom ma ne ko namuñu daray gan ndax Serigne Touba fii lañ ko ganale fii ci Daaru Salaam kon namuñu daray gan Macky Sall comme nanguta ñëw Daaru Salaam na toog ñun dinañ am gan incha allah bañ ganalee Serigne Touba ba léegi namatuñ nag fii sa sëbi yii toog seen maama ko ganale fii ay yoon yu baax ndox àgg fa ay fajukaay ay jàngukaay loolee citoyen bu am sa alal man ko def ko dalaa neex waaye kam war mooy état te gisuñu lenn loo xam ne benn état def ma ko ci dëkk bi di Daaru Salaam di dëkk boo xam ni su teewoon loxoom tey ci commune Mbacke mairie Mbacke SORD du fay ay emploi am parce que Mbacke Daaru rek mooy benn dëkk bu am ñaari garage tey boo demee ci biir marché Mbacke bi ab garage bu mag a nga fa ñuy wax ay sareet ak i taxi di fa jugee di ñëw ci biir dëkk bi di fay 100 foofa la fay xëy ci ay oto ak di wàcc kenn xamul nu mu toll te ku wàcc ni muy bàyyi versement bu mat sëkk kon mbooloo ñooy yëm ca garage boobu di ci diggante bi itam maire bi di ci gagné wax Elton muy garage Sancaan yi foofu ba 2 heures du matin boo demee da ngay gis taxi yi jakarta yi sareet yi dugg ko génn di ci maire maire bi maire bi di ci gay gis boppam kon Daaru Salaam lu mu warloo ak réew mi def na ko lu mu warloo ak commune bi def na ko waaye réew mi li mu warloo ak Daaru Salaam defagu ko commune bi li mu warloo ak Daaru Salaam defagu ko ñu gis ne nag li nga moom laaj ko fulla la fayda la ngor la ndax bu yonent bi wax ni bëgg sa réew jaamu yàlla la bokk bëgg sa réew aju rek toog ci moo tax ak ñi mu àndal ak jeunesse su Daaru Salaam taxaw ngir xeexal seen dëkk ndax Daaru Salaam mooy suñu senegal bu fépp meloon ni per te Sénégal Daaru Salaam mel du ñu gënal boo dañuy jàpp ni fenn doxut kon ñun bay sa tànk ñun Daaru Salaam la ñu am pare nañ nag pour lépp loo xam ni laaj na ko ngir daaru salaam gëd gëddaam ci réew mi gëd ay wàccuwaayam lépp lépp pare nañ ko ci côté bu mu mën a doon parce que maam bi fi nekkoon léppam da ko defoon ci yariñ doomu aadama yi ba muy jël vingt cinq mille tonnes ceeb ko indi ci réew mi di ko séddale dañu woon xàmmeewu ma tiijaan wala murit wala jullit ab ceeb ñëpp ko yitte woon nañ ko ci port bi tasaare ñëpp ci seen wàll kon njabootu maam Cheikh ndono loolu lañ war a wéyal te ku wax ni 1919 Afrique bu fekkee gën a fee riis bokk na ci ñi ci gën a riis ci Afrique kookee kon la ko waroon ci liggéey def na ko yàlla yaay lekk leen dafa wax ni soo bokkee ñun mbir ba ko yàq kon dañoo bëgg a amu ci fenn fu ñu mën a daw jëm furul ci réew a ko yàqal asalaamaaleykum wa rahmatullah